Hamsatu Lo Serigne Hamsatu Lo mi ngi feeñ jamono ci atum 1893 ci dëkk bu ñuy wax Ndaamu Njonaap Ndaamu Njonaap gi nag mi ngi ci suuf si nag di Njàmbur ci dëkk boobu nag la Serigne Hamsatu Lo jamono ci atum 1893 di doomu Soxna isa Diop ak ku ñuy wax Serigne Daam Xujja Jabu Lo moom Serigne Hamsatu Lo nag bi mu feeñee jamono ci dëkk boobu nag di Ndaamu Njonaap ci atum 1893 am na nag ñu bokkal Soxna isa Diop ak kii di Serigne Daam Xujja jabuloo Lo ñu mën caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Moodu Isa Lo ibnu soxna Isa Jóob ibnu sëriñ Daam Xujja ak ku ñuy wax sëriñ Abdou Karim Lo ibnu soxna Isa Jóob ibnu sëriñ Daam Xujja Jabu Lo ak Seex Ibrahima Lo ibnu soxna Isa Jóob ibnu sëriñ Daam Xujja Jabu Lo mi ak moom sëriñ Hamsatu Lo ibnu soxna Isa Jóob ibnu sëriñ Daam Xujja Jabu Lo kon ñett la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom muy ñeent ak ñaar ñu bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu waajur wu góor daanaka mooy taawub soxna isa jóob mi di moor isa jóob ibnu soxna isa jóob ibnu lat joor jóob ak ku ñuy wax seex masàmba mbàkke ibnu soxna isa jóob ibnu mamoor anta sali mbàkke kon ñii la bokkal soxna isa jóob muy moor isa jóob doomu lat jóor jóob la seex masàmba mbàkke doomu mamoor anta sali mbàkke la sëriñ du loo isa doomu sëriñ daam xujja jabu loo la sëriñ abdu karim loo doomu sëriñ daam xujja jabu loo la seex ibrahima loo doomu sëriñ daam xujja jabu loo ak moom sëriñ Hamsatu Lo mi doomu sëriñ daam xujja jabu loo bi matee dal alxuraanul karim magam ma Masamba Mbàkke moo ko jébbal xaadim rasuul ci dëkk bii nag di daaru marnaan ginnaaw bu xaadim rasuul jógee ci géej gi ci atum 1902 ca 1903 ba nag ca weer wu njëkk wa du mois de janvier ci la xaadim rasuul nag nekkoon nag ci dëkk bi nag di daaru marnaan ci ngan gu mu amoon nag ci rakkam ja maam cheikh na ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ci diggante boobu nag la ko cheikh Masamba Mbàkke Ibrahima Faty Mbàkke ndaamal daaru nag la ko bàyyee loon daa di dem nag ci réew mii nag di gànnaar sëriñ ndaam Abdourahmane Lo nag moo ko jàngal nag lii di alxuraanul karim bi sëriñ tubaa seexul xaddiim nag jógee nag ci dëkk bii nag di gànnaar dem ci yéen jolof laaj lu woon na nag kii di sëriñ Xamsatu Lo magam ma sàmba Mbàkke nag moo ko jàngal nag lii di xam-xam nag ci dëkk boobu nag di ca yéen jolofa ginnaaw ca yéen jolof nag kii di sëriñ Xamsatu Lo nag nekkoon na nag ci loxoy Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina ci diirub ñetti ati suñu boroom di tarbiya boobu nag soo delloo ci marché bi ko cheikh Moussa Ka defal boole koog magam cheikh Massamba Mbacke ma ngi cay nettali njàngum sëriñ Amsatou Lo ci loxoy maam Cheikhna Ibrahima Faati Mbacke ndaamal daaru ci dëkk bii di daaru Marnaan ak wóolu gu ko sëriñ Touba Seexul Xaddim wóolu ci ca yéen jolofa ak tarbiya gum tarbiya wu ci loxoy cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina ak jëlee nag gu ko fa cheikh Massamba Mbacke jëlee ko Xaadim Rasuul loolu lépp nag cheikh Moussa Ka bind na ko nag ci am marché bu mu booleeg sëriñ Amsatou Lo ak kii di cheikh Massamba Mbacke magam ginnaaw bu cheikh Massamba Mbacke génn génnee àdduna ñu teewlu lenn ci marsiya ba sëriñ masamba tarbiya fa bamba cheikh hamsato nga tarbiya nga xam ne moo rawoon ku dul cheikh siriloo cheikh hamsato defoon muridun sadiq ca sayxu ibrahima fall may saabiq cheikh ibra fall moo ko yoroon ba muy ndaw looloo taxoon mu faf ne daw raw lu góor di def ci zahir ci baatin cheikh ibra moo ko ko defal dajëkkun xam na fa ay xat mag ja moo ko laaji daal koy dalal nax xadaa il xaaji jëddal ko cheikh bamba fa daarul mannaam mu teel a xam ba teel a xam leex ba la ko bamba tarbiya daana fanaane tari waxtu tartiya daanañ ko tungam di ko jël bamba muy tari jës bu fa sëriñ masamba te ak rawam yéem naa ko ngir la sax ba bamba dem gànnaaru mu def fa maam ceerno ñu gën faa waaru ba bamba dem woo ko fa daarum rahman foofee la xàggalee ba xam fariduwaa loolu leen la ci marché bi ko cheikh Moussa defal boole koog magam cheikh masamba mbàkke ginnaaw bu mu jàngee nag ci loxoy xaadim rasul ndax magam xaadim rasul la ko jébbaloon nekkoon na itam ci loxoy cheikh ibrahima fall lamp baabul muridina na ngir tarbiyew ci diirum ñetti at dëkkam ginnaaw Cheikh Ibrahima Fall nag la fa bàyyikoo nag dem nag ci dëkk bu ñuy wax kokki guy nekkit nag ci suuf si nag di njàmbur fas yéene taxawal nag ay daara kokki guy googu nag nekkoon nag ci suuf si nag di njàmbur la nekkoon nag di yar di jàng ak di jàngale ba nim fa bàyyikoo wuy si xaadim rasuul ci njaareem mu doog ko yabal nag ci dëkk boobu nag di ngaabu ba tax na nag kii di sëriñ am sutuloo nag taxawal na nag ay daaray daaray daara ci biir réew mi ñu mën cee ràññee daara ju nekkoon ci dëkk bii nag di kokki guy amoon na daara itam ci saalum ci dëkk bu ñuy wax itam ci dëkk bu tudd Thiey suuf si itam nag di Jolof itam amoon na fa daara ci dëkk bu tudd Ngay Ngéy amoon na daara itam ci dëkk bu ñuy wax Dànq Seen amoon na daara itam ci dëkk bu ñuy wax Mérina Saaxo amoon na daara itam ci dëkk bu ñuy wax Caaxa fii mu goroon sanc ko itam ci ndigalul ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim itam di ngaabu ngaabu googu itam bi mu fi ñëwee di ngaabu sànqaay dafa dox itam lu tolloog un kilomètre sanc fa itam ab dëkk bu tudd Daaru Salaam ñu koy wax sax jamono ji Daaru Loo ci foofu ci ngaabu ci yi dëkk nag la nekkoon di yar di di jàng ak di jàngale comme nag ni ko yoonu murit nag baaxoo nag di defee ngir ñi ko yaakaar ngir xaadim rasuul ci mbooleem dëkk yooyu mu jaar sax gor ko sanc ko wala mu nekkoon fa di yar di jàng ak di jàngale soo delloo ba tey ci marché bi ko Cheikh Moussa Ka defal boole koo magam Cheikh Massamba Mbàkke mag ñuy limal tarbiya bu sëriñ Amsatu Lo daa def nag ak mbooleem nag dëkk yi mu jaar ci biir marché ba ak itim nag ni mu fonke woon bis bii nag di bisu màggal nag di bis boo xam màggal ci dëkk yi mu jaar itam doon ko ca màggal itam Cheikh Moussa Ka ma ngi ko cay waxaale ñu teewlu ko te moomu xat lañ ko yebal fa ndaamloo mu xam fa yaari xat ñu daal koy demloo mu daal dafay a sax na fa ay xat kokki guy dawaaru daana siyaare deqaleeg muxtaaru yooyu xat la ko bawal ak njaambur ñëppi xëccoo ku nekk naa mooy sàmbar mbàkke kajoor daana fa fekk ceerno di yóbbu ay hadiya naa ko may no la yaaba cee waa dànq jàpp ngiy ngay si xam satoo leen Bamba ak Moxoja Fay Mawli moo tax Kajoor di màggalaat Bawalo ak Mbawar ak Mbuur ilaa Jiwaalo màggal na Kees màggal Luga sangal màggal Ndakaarook Ndar bu leen sikkal màggal na Kawlax ak Gosaas ak Jurbel lislaam da def toolam di bay di màggal dem na Jolof màggal fukkat tiijaan jox ko ñaan ya Cheikh Amsatou jiite keroog jumaa ja taril xadiis yi arbaine waaja noonu ko Cheikh Moussa Ka waxee nag noonu la sëriñ Amsatou Lo doon ba am bis nag mu jóge nag ci dëkk boobu mu nekkoon nag seexul xaddim ba noppi la ko xaadim rasool doon xamal ne woote bi yàlla moo gën bu nit wala woote yàlla daal moo gën a gaaw bu nit ndax kat dama laa soxla woon ci dëkk boobu nga nekkoon nag di kokki guy nag laa bëgg nag nga jógee fa nag demal ma nag ci dëkk bii nag di ngaabu keroog ba mu ko koy wax nag ci teewaayu magam seex ma sàmba mbàkke la booba nag mu ngi tolloog sëriñ Hamsatu Lo nag ay atam toll nag ci ñaar fukki ati suñu boroom lii sababum nag mu yebal sëriñ Hamsatu Lo nag ci dëkk boobu nag di ngaabu ginnaaw ba fa sëriñ Tuubaa seexul xaddim nag lii di jee jaamu yàlla gum jaamu yàlla nag ci dëkk boobu nag di ngaabu rawatina nag ci gox boobu ñu tudde nag sànqaay ndax garab googu fa ne woon nag di garabuk sànqaay ginnaaw bu fa sëriñ tubaa seexul xaddiim nag di bàyyi ko bërëb di suuf sa ma nga doon xamal ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim jaamu googu mu fa jaamu suñu boroom bërëb boobu daal mus sa am jaamu gu mel noonu bu sañoon nag moom mu des fa nag di jaamu suñu boroom loola itam taxoon na nag mu def nag am màndarga nag ci barab boobu nag rawatina ci garab googu nag di garabuk sànqaay ndax sëriñ tubaa seexul xaadim itam daggoon na ci mbubbam suul fa daggoon na itam nag ci kawar boppam itam suul fa foboon na daay itam wiccax ko nag ca garab ga di garabuk sànqaay ga ngir màndarga nag gu mën a am nag ci bërëb boobu bi mu ñëwee nag ba nekk njaareem la fay doog a yabal nag kii di sëriñ xamsatuloo kon lii mooy sababu nag mu yabal sëriñ xamsatuloo nag ci bërëb ba waaye keroog nag ba mu ko fay yabal wala laataa mu ko fay yabal kii di cheikh Massamba Mbàkke nag la doon waxal di ko xamal damaa bëgg na nga wutal ma kenn nag ci frais mu demal ma nag ci dëkk boobu nag di ngir nag man ma faa nekkal ginnaaw bu cheikh Massamba Mbàkke nag di xalaat la ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim wooluwaat di ko waxal na suñ borom de xamal na ma ne xam sa tulloo kat mën na faa dem nag nekkal ma fa ca ba sax seex ma Massamba Mbàkke nee na tekk ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim di ko laaj lan la mu ne ko xam sa tudde day gone te ngaabu nag day paxiwel nag yu màggat te paxiwel yu màggat nag lu ne nga ca ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim doon na xamal seex ma Mbàkke ab lamp lan lay jëriñ ci lëndëm mu mu ne ko xam satu mooy lamp laa laa nag moom moo canton bi sëriñ tubaa seexul xaddim nag di xamal sëriñ xamsatu di ko wax ne ëllëg yowmal xiyaam ruuy waa laa yow laa koy laaj ruuy waa laa yow laa koy laaj te xamsatu nag soo eggee nag ci tund woow nag di laa wala ci dëkk boobu nag di ngaa ngaabu sànqaay bu leen laaj dara te ku la tooñ itam na nga ko jéggal moo tax soo delloo ci marché bi Cheikh Moussa Ka defal sëriñ Massamba Mbàkke boole ko rakkam sëriñ Xamsatu Lo mi ngi ñuy xamal ci biir marché bi bisub keroog bi sëriñ Tubaa Seexul Xaddim wooloo sëriñ Xamsatu Lo ak Cheikh Massamba Mbàkke doon leen liggéeyloo ab barrière nag nag ci njaareem wala ab baraag nag ci njaareem dañ def fa nag ay weer nag ginnaaw buñ ko liggéeyee ba noppi nag la ko sëriñ tubaa seexul xaddim nag yabal nag ci dëkk bii nag di ngaabu loolu itam tax na seex Musaa Ka ci marsiya bi mu jagleel kii di seex Masàmba Mbàkke ak rakam sëriñ Amsatu Lo ma ngi ko cey wax ñu teewlu ko xanaa yëgoo ba Bamba wàccee Jurbel dala sa sin seex Amsatu mu jarfal Bamba ko wóolu mook sëriñ Masàmba ñu am fa ay weer di defar barrière ba ko weddi laajal Cerno Gay meetar moo njëkk am martu foofa booba ba kër ga xàggee mu yebal leen leen daaru xudóosin takk mook sëriñ ndaam ànd ak murid yu kenn xamul fanaani daam ba ñu xëyee ñu takk wàcc daaru daaj fukki nekk ak ñaar ba tuubaa waaru sanc fa kër guñ tudde daaru kaskari ak daaru naar te yaari gaay yi ñoo gore rañ yére yañ dencan fa taaxi jurbel yóbbu ko tuubaa kenn yëgul kudul ñal keroog la bamba bind ab xasiida bégal ñi doon sanc fa tuubaa ziida hablil la si na aw naqaloo am texati yamal jiwaa maa yasxulu wenn bayit wi laa fi def muy taaba ñu sancilaat ko kër fa ngaabu taaba bandaa fa julli woon xatum mbaaxam ja sëriñ masamba kura far caaxam ja wax na ne buñ ko tere woon salaatu mu woolu ñuñ badar ba noon ya faatu nee fa def leera na mboolem réew ma sakkantuma ngaabu ka xelli meew ma loolaa taxoon sëriñ masamba mbàkke yebal fa cheikh xamsaduloo mi tekki boolem murit buñ naa sëriñ maa jaga ja moo daa saxoo xasiida moo di waaja cheikh xamsadoo fa daal di rabbi jàkka ñu daal di koy seng mu jublu makka mu daal di kitaabu nga bo kila tum nañu raagak laaga budul ko nag moom ñu layoog malaaka kazu rajab daana ci wootek maggal walaylatul mawlidi kooko yombul diray yi nag diray gileem ngir yàlla ak Mustafa ak Cheikh Bamba sittu balla si xamsatoo soppan rasulullahi salla alayhi llahu duna si xamsatoo sopp xadimal Mustafa bay jooy ku weddi laaj sëriñ makkaan di moom jeey si xamsatoo rëyub cofeel ci yàlla ak Bamba ak yeneen ba moo xam fukki xat ak juróom yenant ak lëf lii la saxoon fa ngaabu xamsatoo Abi Lahab di leen waar sànc fa ak Madina moo béy ko loolu la Cheikh Moussa Ka seede nag ci sëriñ Hamsatu Lo ci bi mu nekkee nag ci dëkk boobu nag di ngaabu laataa muy dem ngaabu nag nekkoon na ci loxoy ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim ci njaareem ba tax na ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim nag féetale woon na ko nag ci kuréel gi jàng nag lii di xasida yi ba tax na sëriñ Hamsatu Lo nag daana yëkkati xasida yi ci teewaayu ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim ci dëkk boobu nag di njaareem yëkkati googu mu daa yëkkati xasida yi ci teewaayu ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim ci njaareem taxoon na itam kii di sëriñ Hamsatu Lo nag nekk nag ku neex baat neex baat boobu sëriñ Xamsatu Lo nag defoon nag taxoon na itam nag bu masaa di yëkkati xasida yi ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadiim daana bàyyi xel lool nag ci njàngum sëriñ Xamsatu Lo moomu loolu itam nag tax na ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadiim bu sëriñ Xamsatu Lo masaa yëkkati nag lii di xasida yi léegi-léegi itam daana fopp hàddiyaam itam jébbal ko sëriñ Xamsatu Lo ngir yëkkati nag googu muy yëkkati nag lii di xasida yi ba tax na itam am na bis ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadiim di xamal kii di sëriñ Xamsatu Lo di ko wax ne booy jàngati nag lii di xasida yi dellu wut nag loo tiimale sa bopp bi ndax koy jàng nag lii di xasida yi malaaka yi nag dañuy wàcc nag ba ci suuf di ko déglu te saa moo tax nag heure boo day jàngati nag lii di xasida yi deel wut nag loo tiimale sa bopp bi ndigal loolu itam sëriñ Xamsatu Lo nag jëfe woon na ko ba tax na nag heure bu daa jàng nag lii di xasida yi daana wut nag lum tiimale boppam ba lii di sababu baas sax wax nañ ne nag ci loolu nag la soqi koo ba tax na kuy jàng nag nekk nag ci ronu baasa ndax ndigal Lo sëriñ Tuubaa joxoon ko ko di ko wax ne heure boo jàngati nag lii di xasida bind deel wut nag loo tiimale sa bopp bi ndax malaaka yi dañuy wàcc te saa leen gisee nag man nga am ak gàllankoor mu nekkin nag ku neex baat ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim moom sëriñ Xamsatu Lo ba tax na lii di gàmmu njaareem itam sëriñ tubaa seexul xaddim daanaka jàngaloo nag lii di barsan bi mu nekk nag ci loxoy ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ci njaareem ba ni ko sëriñ tubaa seexul xaddim jébbale nag dëkk bii nag di ngaabu bi ko sëriñ tubaa seexul xaddim nag di jébbal nag dëkk bii di ngaabu moom sëriñ Xamsatu Lo dafa nekkoon nag ci dëkk bi nag di kokki guy nag di liggéey ba am bis nag mu jóge kokki guy nag ñëw nag doon ziyaare si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ci njaareem ginnaaw ba mu ziyaare ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim la ko di ko xamal ne wooteeb yàlla de moo gën a gaaw bu nit ndax maa ngi la soxla woon dëkk bële nag di ngaabu nag laa bëgg nag nga dem nag toog fa ndax kat suuf sa ba nëg ni kat mi ngi jooy ku fa nekk nag di jaamu suñu boroom soo demee nag ngaabu nag ca garab ga fa nekk nag di garabuk sànqaay nga dal fa te soo nga dox nag lu tolloog nag junniy jéego foofa nag moom mooy bërëb ba mën sanc nag te toog fa soo eggee ba ca garabuk sànqaay ga itam ci ngaabu nga te ku ñuy wax ma sàmba kura juuf ma sàmba kura juuf moom sax ginnaaw bu mu faatoo sax ci bërëb boobu sax lañ ko denc di ca ron garabuk sànqaay ga bisub keroog bi sëriñ xamsatu loo nag di jógee njaareem nag ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim nag di ñëw nag ci dëkk bii nag di ngaabu sànqaay sëriñ tubaa seexul xaddiim itam dénkoon na ko na ko soo eggee nag na nga fexe ba bu leen laaj te ku la tooñ itam nag na nga ko jéggal na nga fexe ba bu leen laaj te ku la tooñ itam na nga ko jéggal boole nag jox ko suufa di ko ca tegal na ko itam boo demee na nga fob barab ba tudde ko daaru salaam boole woon na ko itam ay góor yàlla nag yu mu àndaloon moom sëriñ Xamsatu Lo mag ña nag mënoon nañ caa ràññe ku wax xaali baaba ak ku ñuy wax sëriñ njaga ja ak ñeneen nag ñeneen nag ñeneen nag ci mag ñi loola itam nag taxoon na ngaabu googu itam nag yebal gu fa sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim yebaloon nag kii di sëriñ Xamsatu Lo ak kiimaan itam yu mu def nag ci dëkk boobu nag di ngaabu rawatina nag ci garab googu nag di garabuk sànqaay ga itam mag ñi umpale ko woon ba tax na itam mag ñi nag daanañ def nag ngaabu googu nag yoonu tool tubaa seexul xaddim kat wax na ne ngaabu googu bokk na itam ci ay cumbukaayam te itam nag bërëb boobu nag di ngaabu ku da nga fa taxaw loolu itam mag ñi ko ba tax na itam daanañ ko jëfe ndax itam seexul xaddim sax kera bi muy yabal sëriñ xamsatuloo ci dëkk boobu di ngaabu ma ngay wax ne bépp bërëb bu mu def da nga ko fonk te def koo xam ne ni denc nañ la ci bërëb yooyu yàkkuñu denc tuubaa yéen a yamub atte ba tey ci ngëneel yooyu dëkk boobu nag di ngaabu sànqaay am garab googu di garab ragabuk sànqaay gi keroog ba fa sëriñ tubaa seexul xaddim jógee daaru marnaan nag di dem njaareem fa la jaar nag jullee fa nag lii di jee ci garab googu nag di garabuk sànqaay ga garabuk sànqaay googu itam ginnaaw ba fa sëriñ tubaa seexul xaddim jullee timis ba noppi itam ngir màndarga gum doon am itam ca garab ga faboon na ca daajam yoroon itam wiccax ko tam nag lii di garab ga ba tax na tam garab ga nag ci diirub li muy dund xob wu masaa am itam tupp-tuppi daajooji da cay nekk garab ga sax nag léegi nag faatu na waaye bënn ga ma yooyu muy garab googu sëriñ tubaa seexul xadim wi coxoon daaja te wépp xob nag wu masaa am ginnaaw gi tupp tuppi daa nag da nekk ba tey garab googu di garabuk sànqaay googu fa lañ denc itam kii di masàmba kuro juuf masàmba kuro juuf bi sëriñ tubaa seexul xadim jaaree ci dëkk boobu di ngaabu nag moo ko dalaloon ginnaaw bu mu tuubee nag jébbalu ci ki sëriñ tubaa seexul xadim bi mu génnee àdduna itam ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim itam moo sàkku itam ñu denc ko foofu ba tey ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim itam doon na wax sëriñ xamsatuloo saa boobu loolu moo waral sax ci diirub dundug sëriñ Xamsatu Lo saa su ne daana amal ak màggal ci dëkk boobu di ngaabu màggal googu sax ba nëg ni sax moom la njaboot gi di sax di ko màggal jaar googu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim jaar ngaabu ak ngëneel yooyu mu wax ci ngaabu loolu tim tax na soo delloo nag ci mbindum Seex mu Ka ci téere bii mu tudde Jazaawu Sakkoori Jéeri ji ma ngi cay wax na ngëneel yu ngaabu am ak itim nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim yebal googu mu fa yebal sëriñ Xamsatu Lo ak bërëb boobu muy wax ne bépp bërëb boo xam ne ni na fa ku ko ko fonk te def ko teew lu ci Cheikh Moussa Ka wax ci téere bii nag di jësaawu sàkkoor keroog la walbati ko jaar si ngaabu fa la julee géega murid yay naabu keroog ma sàmba kura juuf sa ngéem na jooy na ba far jébbalu xol ba sooy na moo tax la xam fa ngaabu xew fa ngaabu bañ fàtte raaga laa gilee raw saabu moo tax ba Cheikh Bamba ñëwee fa njaareem mu sanc fag daaru yabal fa ay doom keroog la daal di woolu xaadi baaba ak Cheikh Hamsa toog sëriñ Masamba sëriñ Masamba kura may leen kër ya moo tax ba altubaa nga fa ak xànd ak dar ya sëriñ Masamba kura tuub na faatu ñu faf ko rob ju ca jullikaay ba yaatu keroog la jullikaay def naa fa loolu ku ko xam def ko ab jotaay te defa ñaan di ko siyaara abada te tudd yàlla ak muhammada loolu mooy way yi Cheikh Moussa jagleel nag lii di ngaabu ci ngëneel nag yu ngaabu am ci jaar nag gu fa Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim jaar nag ci bi muy dem njaareem nag ngir dem gànnaar ci atum 1903 Sëriñ Hamsatu Lo nag wéy nag nekk nag ci dëkk boobu ko Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim dël nag di ngaabu di yar di jàng ak di jàngale dëkk boobu di ngaabu itam nag dëkk boobu nag di ngaabu sànqaay ñu baree bari itam nag daanañ nag seet si garab googu nag di garabuk sànqaay gi ci yéeme googu nag garab googu itam am ndax kat garab googu kat xob wu masaa am nag suppi daaja fa sëriñ tubaa seexul xaddim wiccoxoon kat nag da koy amaale taxoon na nag mu nekk nag ku jaxasoog mag ñi ndax bàyyi xel gu ko sëriñ tubaa seexul xaddim bàyyi xel tax na nag képp kum bokk loonu ëttub woon nga xel na kii di sëriñ xamsatu lo moo xam njabootu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim moo xam ñim bokk loon ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim rawatina nag magam cheikh masamba mbàkke nag mi mu faboon léppam jébbal ko ginnaaw bu fi xaadim rasool bàyyi ko ci atum 1927 dafa foob léppam jébbal Masamba Mbàkke ba ci taawam bii ko njëkk a wuutu sax Cheikh Masamba Mbàkke la ko tudde di Serigne Cheikh Lo magam jël léppam jébbal Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ba tax na moom magam Cheikh Masamba Mbàkke benn lañ woon loolu itam taxoon na kii di ma sàmba Mbàkke ginnaaw bu fi Serigne Amsatou Lo bàyyi ko foboon na njabootu am sa Lo itam joxu njabootam ndax taawu ma Masamba Mbàkke bii di Serigne Modou May yoroon na doomu sëriñ am Amsatou Lo di ku ñuy wax soxna Jóob Kuraloo soxna Jóob Kuraloo mi moodu may bu cheikh masàmba bii di soxna bintu mbàkke sëriñ moodu faati xari mbàkke itam moom cheikh masàmba mbàkke itam yoroon na doomu sëriñ xamsatuloo muy ku ñuy wax soxna njóoba loo soxna njóoba loo mii sax moom meññi taawub sëriñ moodu faati xari mbàkke di sëriñ cheikh mbàkke moom sëriñ moodu faati xari mbàkke ba tey diggante sëriñ xamsatuloo ak kii di ma masàmba mbàkke sëriñ xamsatuloo yitoon na ay addiye kii di cheikh masàmba mbàkke mu tolloon ci téeméeri ak juróom fukki dërëm ginnaaw bu cheikh masàmba mbàkke sëriñ Hamsatu Lo di ko xamal ne jot naa addiye yi nga ma yónnee woon dem tolloon ci téeméeri dërëm ak juróom fukki dërëm maa ngi lay ñaanal nag suñ borom fay la te dooli la yiw te defal la barke ginnaaw boo jotee sama lettre nag maa ngi lay yëgal ne bu subaa ci àjjuma ji damaa bëgg nag nga yónnee ma téeméeri góor yàlla ak juróom fukk ñu ñëw nag defaral ma kërug Tuubaa gi ndax damay am nag ñaari gan nag yu fiy ñëw àjjuma muy gouverneur bu Ndar ak gouverneur bu Ndakaaru yow nag maa ngi lay digal nag bu àjjuma ci fajar nag bi fenk nag nga ñëw ci soo ñëwee nag nga ànd ak képp ku aju ci man te sooy ñëw na nga indaale fas yi ak giléem yi ak mbaam yi ci gàttal daal ndaw loolu sax di indi lettre bi bu egsee lépp lu mu la wax daal maa ko wax ci gàttal ki la bind lettre bi nag mooy ma Massamba Mbacke yow sëriñ Hamsatou Lo murit saadeex bi ñu teewlu lettre bu ko ma Massamba Mbacke bindoon te doon sàkku ci moom nag mu indil ko téeméeri góor yàlla ak juróom fukk ngir ñu defaral ko kërug Tuubaa gi ndax gouverneur bu Ndar ak bu Ndakaaru nag dañuy gan si Cheikh Massamba Mbacke ci ginnaaw nag Massamba Mbàkke téeméeri dërëm ak juróom fukk ñu teelu leetar bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu liman kaatim haasihi alxuruf ukaana allahu mina baabil barri walmaaruf anfaa taxiyat wal ikram maa al alaami baani raaytu mihata wa ashirina defama minka fa jisita wa kufiita wa buurika fiika wa zaadaka siyaadata xayrin wa risqin summa baada salika fa arsil ila gada waqta duha mihatan wa xamsina rajulan li aslaha ma kaana huna min alxariyati li itiyaani al amirayni man kaana fi ndakaar wa man kaana fi ndar fi tuuba yawmal jumaati wa amartuka بالإتيان ليلة الجمعة والصبح قبل طلوع الشمس مع جميع ومن تعلق بي هنالك مع جميع الخيور والجمال والحمر فبقية الكلام على لسان حامل والشيخ مسمى بكي بن محمد حبيب الله عصمه الله ووالله وتوالله فإلى أخ المريد المردي عنه حمزة لو مبعوث lettre boobu la Cheikh Massamba Mbacke bindoon Serigne Hamsatou Lo ba tey diggante Serigne Massamba Mbacke ak Serigne Hamsatou Lo ginnaaw bi Serigne Hamsatou Lo génnee àdduna ci atum 1936 rakam ja Cheikh Ibrahima Ibrahima Lo yëgal ko seen mag ja Cheikh Massamba Mbacke Cheikh Massamba bu sell bii di Touba moo ko taxawu moo ko jullee moo ko jébbal itam boroomam mu tëdd nag ci armeer yu mag ya loole itam tax na bi sëriñ Massamba Mbacke génne àdduna ci atum 1942 ñu denc ko itam ca wetu rakkam ja sëriñ Hamsatu Lo maam Thierno Ibrahima Fatim Mbacke ndaamal daaru ko amoon kóllëre la ak kii di sëriñ Hamsatu Lo ndax ci 1903 la ko xaadim rasul dénkoon sëriñ Hamsatu Lo dem gànnaar ñaar loolu itam sëriñ Amsatu Lo sàmmoon na ko nag ci maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ba tax na itam jaxasoo woon nañ lool sëriñ ndaam Abdourahman loo moo jàngal alxuraanul karim kii di sëriñ Amsatu Lo loolu itam taxoon na sëriñ Amsatu Lo itam sàmmoon na ko maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina sëriñ Amsatu Lo nag def na ci ay loxoom lu tolloog ñetti ati suñu boroom ndax soo delloo ci marché bi ko Cheikh Moussa Ka way ma ngi ko cay wax kon amoon nañ nag ak jaxasoo gu yaatoo yaatu ay rakki boppam Khadija Jabu Lo moo xam sëriñ Abdou Karim Lo ak kii du Cheikh Ibrahima Lo amoon nañ ak jaxasoo rawatina nag kii du Cheikh Ibrahima Lo ndax laataa sëriñ Hamsatu loo di génn àdduna moom la ci waxtaanal moom itam nag la dénkoon ak njabootam bis bi mu daa sant suñu borom ci ndigal lu ko Xaadim Rasool joxoon itam Cheikh Ibrahima Lo la ko bàyyeeloon itam mu di ko wéyal ba tax na ak ginnaawam itam Cheikh Ibrahima Lo moo ko sàmm sëriñ Moor Fati Touré bu Madina ko amoon kóllëre la ak sëriñ Hamsatu Lo ba tax na sëriñ Amsatu di ku ñuy wax soxna Assu Lo bintu sëriñ Amsatu Lo soxna Assu Lo mi bintu sëriñ Amsatu Lo moo meññi xalifab sëriñ Mor Faati Touré jamono ji di sëriñ Baara Touré ak ku ñuy wax sëriñ Omar Touré ibnu soxna Assu Lo lañ moom sëriñ Amsatu Lo ak kii di sëriñ Mor Faati Touré doomam ji itam di soxna Jóob Kuré Lo ginnaaw bu mu jógee ci loxoy sëriñ Moodu May Mbàkke bu Seex Masàmba Mbàkke jébbalaatoon nañ ko nag ku ñuy wax sëriñ Maxtaar Mbàkke bu Màmmoor Jaara magi mag itam am na ci njaboot ñu ràññee ci El Hadji Abdou Karim Mbacke moom sëriñ Maxtaar Mbacke moom Mamor Jaara ak ku ñuy wax soxna Daba Mbacke moom sëriñ Maxtaar Mbacke moom Mamor Jaara ñaar ñooñu itam soxna Jóob Kuraloo moom sëriñ Xamsatu Loo moo leen meññi moom sëriñ Xamsatu Loo nag lii nag di yoonu murid nag ak njabootam nag ñi ngi ci Seex Musaa Ka bokkoon ci jàmbaar yi ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ko amoon kóllëre la ak kii di sëriñ Xamsatu ba tax na bi mu fi bàyyi ko ci atum 1936 yàlla defal na ko marsiya bu yaatoo yaatu di fàttali nag dunduk sëriñ Hamsatou ak ay jaar-jaaram ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu mu amaloon relation ci ëttub ku baax ki sëriñ tubaa Seexul xat Xaddiim moom sëriñ Hamsatou Lo mu wéy nag des ngaabu nag topp nag ci magam Seex Masàmba Mbàkke ba ni mu génnee àdduna ci atum 1935 laataa muy génn àdduna ci bëccëgu ñaar fukki fan ak juróom benn ci maamu koor ci atum ci gàddaay gi moom sëriñ Hamsatou Lo dafa woolu rakkam ja sëriñ Ibrahima Lo kat léegi mu ñëw ndax kat fépp fu ma dem wala ma romb ko moo xam lu man di doon damay gis ñu bind ca am satu loo xat maata te lool nag moom mooy màndargaal ne kon li ma dese ci àdduna bëree tut ma bëgg nag nga toogandi fii wuufandi njaboot gi ndigal lool tim rakkam Cheikh Ibrahima Looy tim jëfee na ko ci diir bu néew nag lañ ca teg sëriñ Hamsatu Loo génn àdduna ci dëkk boobu di ngaabu sëriñ Hamsatu Loo nag mi ngi génn àdduna ci dëkk boobu ko Xaadim Rasuul deeloon di ngaabu ci bëccëgu dibéer ak juróom benn ci weer wii di weeru 1355 ci gàddaay gi dibéer ñaar fukki fan ak juróom benn ci weer wi di weeru maamu koor ci atu 1355 ci gàddaay gi dëppoo muy dimanche 13 septembre 1936 dimanche 13 septembre 1936 ci dëkk boobu ko xaadim rasool dëloon di ngaabu sànqaay sëriñ ibrahima mii mi rakkam moo dem yëgal ko nag kii di ma masamba mbàkke mi nekkoon seen seex ma masamba mbàkke nag di sàkku nag ci cheikh ibrahima loo nag mu indil ko ko nag ci dëkk bu selli bii nag di Touba ñu denc ko ci booy dugg nag ci armeer yi foofu ñu ko denc nag fa lañ denc itim nag magam ja cheikh Massamba Mbàkke kon fi ñu denc sëriñ Hamsatu Lo ci ñi ko xamul ci armeer yi mi ngi ci wetu barabu cheikh Massamba Mbàkke cheikh Massamba nag moo ko denc foofu sëriñ Hamsatu Lo nag ci dundam ngaabu googu itim nag la nisooroon ngir ñu denc ko fa ginnaaw bu mu génnee àdduna nag rakkam ja cheikh Ibrahima Lo ñëw yëgal ko seen mag ja cheikh Massamba Mbàkke cheikh Massamba Mbàkke nag doon sàkku ci cheikh Ibrahima Lo nag mu indil ko sëriñ Hamsatu Lo kon lii mooy sababu ñu ci dëkk dëkk bu sell bii di Touba ci njiitalu magam nag Cheikh Massamba Mbacke Cheikh Massamba Mbacke moom nag moo ko taxawu moo ko jullee ci xilaaf ak Cheikh na bi mu génnee àdduna ci atum 1936 Cheikh Moussa Ka defal na ko am marché bu yaatoo yaatu boole koog magam Cheikh Massamba Mbacke waaye nag marché bi Cheikh Moussa Ka mi ko bind ginnaaw bu Cheikh Massamba Mbacke génnee bi Serigne Hamsatou Lo bi mu booleeg magam Cheikh Massamba Mbacke ma ngi koy wax jikko yu ñaari doomu soxna Issa Dieye yooyu amee woon ci ñoom ñaari tim nu ñu kiimaanee woon muy diggante Cheikh Massamba Mbacke ak Serigne Hamsatou Lo ñu lu ko. ma dellu wax la ci ma Massamba xar baax yi lay fàttale Cheikh Bamba defar la wax xar baax Cheikh Hamsatou Lo rakkam ju baax ja moo sigal kër Siré Lo ku deeti ñaaru doomu soxna Isa Jeey ma jooy Serigne Hamsatou Lo moo mat jooy doon naa ko jiyee ma jooy ca ama dan sa si cofeel ga far ma wopp maa ngi las lasi ndekete moom magam ji laa di boole marsiyaal yéen yi yaarigat laay tey gumbalaa saa yaarigat wan nen na saa gati xol ak yi ci des xol bi cheikh xamsa toy ñuul ñuul bi woon ci bët bi xaw ma ku may royate ngir njool màkka xaw ma ku may royate ngir njool mbàkke sëriñ masamba may xamal cheikh bamba cheikh xamsa toy ma daa daggal yoon nen ba sëriñ masamba daa bindal cheikh bamba cheikh xamsa toy nu daa taril mawlid ba sëriñ masambay saaxibul kamali cheikh xamsa toy di saaxibul jamali sëriñ masambay saaxibul inaaya cheikh xamsa toy di saaxibul wilaya sëriñ masambay saaxibul diraya cheikh xamsa toy di saaxibul riwaya sëriñ masamba di borom maqaama cheikh xamsa toy defoon borom karama sëriñ masamba doon bigum jilaani cheikh xamsa toy fa daa bigal tijaani sëriñ masamba daa digal biidaani cheikh xamsatoo daa jaxasoog soodaani sëriñ masamba buy fanaan diiwaani cheikh xamsatoo nga jëppeey ba góor yey naani sëriñ masamba suy faleeka folli cheikh xamsatoo rakkamte mooy sul fadli sëriñ masambay saaxibul wusuuli cheikh xamsatoo soppan donay rasuuli sëriñ masambay xaadimul xadiimi cheikh xamsatooy saadiq te far di doomi sëriñ masamba topp doomi jaara cheikh xamsatoo nga jébbaloo fa jaara sëriñ masamba tërbiya fa bamba cheikh xamsatoo nga tërbiya fa lamba loolu mooy marché bi ko cheikh Moussa Ka defal ginnaaw bu magam ja cheikh marsiya bi moom Cheikh Massamba Mbàkke nag ak rakkam nag kii di sëriñ Hamsatu Lo sëriñ Hamsatu Lo nag ay xalifaam nii la tëddee sëriñ Cheikh Lo mim faye magam ja Cheikh Massamba Mbàkke mooy ki ko njëkk a wuutu ci atu 1936 ba 2006 ñaareelu xalifa sëriñ Hamsatu Lo mooy Cheikh Ibrahima loo màggat kan moo ko wuutu ci atum 2006 ba 2010 ñetteelu xalifa sëriñ Hamsatu Lo mooy sëriñ Abdou Karim Lo moo ko wuutu ci atum 2010 ba 2012 liñ tudde nag doomu sëriñ Amsatu Lo yu góor yi nag jeex tàkk nag ci kaw suufa sët tàmbalee wuutu seen maam ja sët bi njëkk a wuutu maamam mooy sëriñ Moodu Mayloo ibnu sëriñ Moodu Kura Lo moom sëriñ Amsatu Lo mooy sët bi njëkk a wuutu maamam nag ci atum 2012 ba nëga ni ñu koy ñaanal moom sëriñ du Mayloo mi suñ boroom guddal aw fanam te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu sëriñ Amsatu Lo bi suñ borom mën na ko am na ko te yàlla na ko def ak mboolem nag njaboot gi mu séqal sëriñ Amsatu Lo leen ak nag nuñ man di bokke nag ci sëriñ Hamsatu Lo mi sëriñ Hamsatu Lo nag am na bis nag buñ koy fàttaliku ci ñu tudde ak màggal màggal gi nag njaboot gi nag ñoo ko jàpp nag di ci fàttaliku seen waajur woowu di sëriñ Hamsatu Lo lii di sababu màggalug sëriñ Hamsatu Lo nag te njaboot gi nag di ko ko màggalal ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moo wóolu woon sëriñ Hamsatu Lo di ko wax ne damaa bëgg nag ngay sant nag suñu boroom ci li ñu tudde ak màggal ci saa su ne ci heure bu ne ci bis bu ne loolu itam taxoon na nag sëriñ Hamsatu Lo ndigal loolu ko Xaadim Rasuul joxoon noonu itam ni la ko daa màggale ci bis bu ne ci heure bu ne ci saa su ne daana màggal nag ndigal loolu ko xaadim rasool joxoon ginnaaw bu mu fi bàyyi ko nag bàyyi fi njabootuk tu tànk rawatina na taawam bii mu fi bàyyi woon te magoon ci njabootam gi di kim faye magam ja cheikh masamba mbàkke di sëriñ cheikh loo nekk tu tànk rakkam ja sëriñ ibrahima loo wuutandi ko nag ci njaboot gi moom itam nag daana dundal bisu magam boobu nga xam ne ni xaadim rasool moo ko joxoon magam ja di sëriñ hamsatu loo moom nag daana ko màggal nag ci at mu jot waaye boobay itam amulu ko woon bis fixe da daa def rek heure ko jekkoo ci at mi màggal ko ginnaaw nag bu mu fi bàyyi ko ci atum 1965 sëriñ seex loo nag daa di toog toogaayu waajuram di sëriñ xamsatu loo moom it sëriñ seex nag ni ko ay waajuram daa màggale rek la ko daa màggalee muy heure bu ko jekkoo ci at mi màggal ko ci atam yi mujj nag la ko fixé nag ci fukki fan nag ci weeru digg ginnaaw bu fi sëriñ seex loo bàyyi ko itam li di doomu sëriñ xamsatu loo yi itam màggal nañ ko ci bis boobu muy fukki fan ci weeru digg ginnaaw nag bu sëdi toogee seen toogaayu maam bi ci lañ waxtaanaan nag si seen biir ñu fab màggal gi nag di ko jàpp nag ci saa buñ ci juboo nag ci at mi ngir nag di sant la seen waajur wa ci sant nag gu ko xaadim rasool joxoon ndigal nag mu di ko def muy li ñu tudde ak màggal kon lii mooy màggalu ko sëriñ Hamsatou Lo ñu koy amale nag ci dëkk boobu ko xaadim rasool dëloon di ngaabu ñuy ñaan ci doomu soxna sa Jóob ba rakku ma Massamba Mbàkke ba yàl suñ borom yokk ay leeram man di bokkee suñ boroom am na ko man na ko lii di jafe-jafe réew mi itam yàlla na ko suñ boroom saafara ci darajay Hamsatu amiin darajay Hamsatu amiin